sàcc wax leen coquelier si lu yàlla sàkk jigéen ndox ak gàncax ñoo ci dàq xale bu yànj bi daa bëgg gàncax gàncax bëgg ko moo tax mu xamal ko li gën ci deram koko dara gënu ko ci po jëfandikool coquelier ak coquelier da ngay gën a tàkk ñuy jant waaw waaw fu jant bi leeree nga leere fa am lotion am crème boo xam ni da teint bu ah wol Rodis 77 988 16 10 le 77 608 72 12. White Secret White Secret star ou yi crème bi lay jox teint bu macha allah teint bu macha allah bu ñëpp di coowee nag ba coow li jug nga ne law la cat white secret maanaam teint bu impeccable effacer imperfection yépp lu mu fekk ci sa kanam yóbbu ko lu mu fekk ci sa yaram yóbbu ko fexe muy nes nesi fu mu toll white secret fee mu jigéen waaw waaw ñu taaru ñi moom rek la ñuy xëccoo teint wóor mu defal la ko ak white secret waaye yow white secret ak ay ci taaral teint white secret 441 08 18 77 441 08 18 ou le 77 449 61 91 amna tamit bébé clear da nga am problème mu peau am jafe-jafe ak ay rew ay point noir utiliser bébé clear bébé clear day réparer ce peau nooyal ko teg si ko ak bébé clear da ngay commencer gis résultat légui légui légui ndax day rajeunir ce peau sublimer ce teint teg si foo ni ñu ragnel Avec ak bébé clear yanj ba faw ngay am fofu rodis 77 441 08 18 77 441 08 18 papa lan mo xew dembu ju guddi jor mayuma jàmm ben yoon di laaj lan la médecin bi di def ci kër gi daf ma ka fanane laaj qu'est-ce qu'il y a xolal Mariam dafa mujj ñibbisi actuellement mi ngi Dakar Mariam ban Mariam men yaay jor. Je vais dama à appartement Je en attendant procès pas tu ne penses pas que la ñu bëgg def c'est injuste le fait que ñu bëgg a Nar, ci crime boo xamante amul Mariama elle est toujours vivante mi ngi dund ba tey Mané, Nar, naar li mu def ne gën a garaaw crime naar sàcc la jël yóbbu loolu lan moo ko gën a garaaw te loolu duma ko ko baal duma ko ko baal mukk laa wax nañu ko pa je suis d'accord avec toi nangu naa li wax imagine ñu condamné naan tëj ko Mariama xey suba feeñ boba avocat naan té demandé révision procès bi té boba buñ ko réviser dañuy bàyyi naar mané ne ba tey nañu ko tej naar dal nañ ko tëj rek c'est bon fi c'est bon ça te va kan moo koy fay non non non non non t'inquiète pas yow fii le lépp fay nañ c'est déjà payé dégg yow tëddal mu noppalu comme ça suba suba ñëwee dañ d'accord ah. Ah, loolu c'est pas un souci Souviens-toi, allah su ma xëy naa fi ñuy actué Mariam naan actué Mariam salaamaaleykum maaleykum salaam Maysa kaay dama bëggoon ñu dem ci procureur. pour lan. plainte bi nga def bi Ndiaye di sama frère moom laa bëgg nga rëtiire ko. yaay bëgguma la manquer de respect mais defe naa da fàtte man la kan. yow may sa arrête may sa yow la kan may sa wax ma sa bopp wax ma yow yaay kan man la Maïssa Tendé Dior Fall di doom ci Jéeri Dior Ndella di doom ci Birma Ngone Sabel Fall man je suis damel un pur Kayorien Le damel ne renie jamais sa parole que je li may def ak li may wax ne mënu koo dindi te bul fàtte ni yaay dama promettre ni sama baay ni dinaa retrouver ñi sàcc alalu Fat Ndiaye Endo vais pare duma leen Je ne vais pas metti mettre. Je ne kenn du ci mën dara doo may ah, nga da nga kañ sa bop ba taxaw di wax yow la kan gis nga sa bay bu ngay tudd bu doon dund limu bëgg man banal jóob loolu lay def ta du ci tek bat la lay wax ni man gawma loolu man may sété nda jor fal gawma loolu man sama la laman la ca nand di damel ca wacc mu ko di lekkat Thank you. looy def fii Yoro kan Mariam xamewuma déedéet man la Ibrahima sa frère Ibrahima frère waaw kon man am naa frère mun naa ne man maay mbokk bi la dese suñu waajur dañoo gaañoo yàgg fàttaliku woo. déedéet. t'inquiète pas incha allah lépp dina ñëwaat tu vas aller mieux en plus man maa ngi la toppatoo. ma alxaama defaral la ndékki indaale naa ndékki Madior. ça va. ça va et toi. yaa pare na. ndékki. ku doon defar ndékki. tey maa defar ndékki. ay nen laa defar nag. ah yow Madior léegi góor gu jàng nga de ah c'est ani Dior moom. Dior dafa génn elle est sortie depuis ay euh, neuf heures yooyu noonu et je pense pas que tey dina yëndu ci kër gi. mais nag defar na añ ba pare mi ngi ci frigo bu mu bàyyi. gis nga jox boo bëggee dëgg-dëgg dama ko fan ndaxte li muy defee nii man su ma ko defoon ci njëlbeen amaana du ñu egsi fii joor fas yéenewul may naar dara. ba ma wax nga dëgg joor vrai guerrier la mais des fois damay damay ragal. looy ragal noonu. damay ragal mu mel ni naar jël ay jikkoom. <laughs> waxal leneen joor maako ko jur te du mës yor jikko naar ndax joor du muy def famille am moo rek mu koy def famille rek lay jiital te naar lépp lu muy def rek bon moo tax ak intere te naar ñépp xam nañ dafa bon bon ba boq bon ànd ak moom di dem. Ah, baax na. لا ربنا من ناقف لكم أحسن في جريمة قالن nit koo gis am na yoo xam ne bëggul kenn xamal ko ko soit dafay nekk ay habitudes yu bon wala fréquentation yu bon wala sax loo nga xamante ne ci paaseem la woon te bëggul mu topp ko loolu du bëgg kenn xam ko Egal. gis nga xaalis bi pour seen ay déplacement la su ma paree naa leen jëndal benn scooter ngeen may toppal naar jóg dama bëgg lépp lu muy def fépp muy fréquenté lépp loo xam ne ay habitude am la ngeen toppal ma ko ba ci heure bi mu koy def bëgg naa koo xam bu leen ko may dara li ma leen sant respecté leen ko à la lettre pour xeer ngeen doon sànni nag teg leen ko ci suuf te xam ne loolu fajul dara est-ce que yéen a may dégg. ma foog ne da nga bëgg ñu jàppal la Naar Diop pour agresser ko. ku doon laajte tapis rouge ubbi na supermarket bu nganda nganda nganda nganda nganda à Touba Daru Marnaan alhamdulillahi lazi dikkati leen ci central équipement Aïssatou Pende Diop l'art de la voyance que tu l'aimes ci central équipement.

bagasse ou boulangerie amnafi four à chariot rotatif bil la pétrin bi farine diviseuse pour pâtisserie central équipement indétineux petit matériel bi chef pâtissier l'heure crêpière gaufrier moule vois le fast food nat am hamburger machine shawarma four pizza friteuse à gaz wala électrique y choisir ou ou yi ndax chariot bain marine salade bar ak in dish borom GIE nak faté wuñu len ak suñuy sacheuse yi pour ay sachet bo soxla pour poudre sucre poivre piment fàttewuñu ndox meew jus am nañu it ay selleuse sous vide pour charcuterie ak poissonnerie bo bëggé ñëw central équipement té yor auto da ngay top déviation bi ba ci station ciel oil bi jugé barrage bi romb Sivop nga jël première mbedd bi ci sanday ndeyjoor budé da ngay dox nak ñëwël ba rond point EDK bi jël premier mbedd bi à droite wala nga

ma foog ne yow da nga bëgg ñu jappal la naar job pour agresser ko santuma len ngeen japp ko santuma len ngeen agresser ko naar bu len fatani jotté wul ak yeen dara man la joteel naar jotté wul ak ñun yow loolu nga fokk comme tu vois. Pas de problème. Ok, c'est allez. Continue On fait comme ça. Eh, yo. Tu vas où maintenant Je suis parti là, on va faire. Parce qu'on met des journalistes, Journaliste Yo, yo, yo. Maintenant, tu es devenu une vraie chef de bande. Mais qu'est-ce que tu fais avec une journaliste tonton Libaas dama bëgg jàkkaarloog àddina bi yépp wax leen kan mooy naar ju li ma def duma ci nëbb dara lépp lay wax. allez il faut éradiquer cette table il faut la formater de la vie comme une carte de mémoire. xanaa jaaxle rek. jaaxle lan moo xew. docteur daal moom laa waxoon mu surveiller ma Mariama mu sàggan ba Mariama génn dem yoonam kenn xamul fi mu toll fan la Mariama nekk. j'espère que du fàttaliku fi mu dëkk ndax Dior actuellement mu ngi kër tonton Libaas te bu demee ci kër googu fekk ko fa tu connais la suite lan la. waaw. ay doom li ngay wax yaa ci teg waaw. ay man sama doom ji jommi na di. yow yaa gis mère Mariam la waaw eh, lan la yow la ay ma. ay man eh seen coow lu bëri naa. Ousseynou la gis mi dee. eh ba leen fonto ah. Ndiaye lan la naa dee la dégg. moom li ma jaaxal nga naan ay. alors ah, xaw ne. mi mariama mbiɗo on dek hulima man duma samoro ma baba ge morom daka sedi wusaynu mère mariama man na de ba pare dek leer na ya ma da sa doom ji daxa tug yamba wala mu la daan sangara bi jaay bayil xale bi waaye ligi sa xamul yar mba xamul dara dama ni xale bi dafa jommi nañu jug ci moom nga naan ay yamba yow la sa xel mi nekk wusaynu ñaati baram lam la taalal trois ay wusaynu ci jumi kay wax ma fi mar mariama nekk kay dama ni jaay bayil xale Eh, ah, mën naa maa bàyyi wala mën naa maa bàyyi xale bi laa wax bàyyi loxo xale bi bu ko gaañ. Eh, bàyyi xale bi yaay. Ousseynou Ousseynou li ngay wax nii nii teg ci sa bët. waaw ay man ay lii fan laa koy gis mère Bariama xalaat nga bu baax li nga nar a def li ma nar a def xam naa ko bu baax gis nga Naar Diop tey lay siiw ba faaw te nu muy siiwee dara du ko ci neex ndax lépp lu ma mës a def ci lu bon ci àdduna duma ko ci baal dara lépp laay wax Naar Diop dootu ko defati xel ne dangaa nara njaboot ëllëg bàyyil xel sa entourage bu la dara naqari samay doom kenn du leen dogaale ci mbedd leen wax leen ndax bés bu jotee pour ma wax leen ko man maa leen tegal sama bopp wax leen waxal leen ko sama bopp li ma dal rusuma ci lenn nëbbatuwuma ci lenn xam nga lu tax du man maa tooñ man lañu tooñ du ma nekk nag di daw baa may nëbbatu du ko tooñ nit tooñu kenn dañ ma tooñ dama koy jooy. fan laa ko gis. fii dama ko gis sànq. fii fii ak nit a ngi fi. ah fii ak nit a ngi fi. bunte bi mën naa tëj woon ak nit a ngi fi. na yàlla la. waaye bàyyil ba ah, ba fi ñu nekkoon du ma woyu waxuma na man ma gis Mariama mii dee ba yàgg xam nga laa gis ah xanaa daa tu daa tu naa dalal tu ñaati baaram la ma taal ah waaw naa waay bàyyil ba ma waxaw di ma banda ba rek man du ma sa morom lépp nag sa yaay la doxal lu dem aca doxal jànk sant nee na émission bi tam day commencé dans deux minutes

tekkil sa ceinture nga jox ma ko loolu dégg wolof yow defal lu gaaw da nga summi sa chemise loo wuti kër caga ji baal ma lan nga ci kër caga ji baal ma dafa lu gaaw ben